salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu di leen jaar man la Soxna Ndiaye dëkk fii ci Daara Khoudoss di sant ñëpp di gërëm ñëpp sama atelier bi nag euh, Taïf Couture la tudd parce que dama bëgg borom Taïf lool sax ba lépp lu ma am rek dama koy duppee. waaw soxna si jërëjëf hmm, maa ngi kontaan trop sa question bi waaw ni ma koy dundee rek comme ni ko nit ñi dundee rek ay jigéen lañ. d'accord ay jigéen lañ ñu tey mu nekk euh, huit mars journée de la femme parce que affaire bi ma ne daf ma laalaal tout parce que damay def sama annif le 7 mars le 8 mars ñëw ma ci sant yàlla bu baax a baax na bi fekkoon na fi yeneen jigéen te fekkaatu leen fii ni ma koy dundee rek comme ni ko jigéen ñuy dundee rek liggéey dóor waar gëm sama bopp soxlaw ma tamit bi leen loo xam ne si góor lay jóge pour mu di ma ko defar pour man jigéen même bu ñu leen jaglelee benn journée sax teewul dañoo war a liggéey gëm seen bopp dóor waar tey genre yi yu mel ne man ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy liggéey ak ñu nekk ci kër yeeg ñëpp ñu di leen sargal di leen delloo njëkkal di leen jox benn journée boo xam ne si ne dañ ne pour jigéen ñi rek jigéen yàlla moo ko njëkk teral kon tamit jigéen dafa war a xam boppam bu baax a baax kam ko jël nañ benn journée du ñu ko kon ñun dañoo war a xam suñu bopp ba du ñu fekk ci dara loo xam ne dañ ñuy yedd wala déet may may may félicité sama mbokku jigéen ñi tamit te xam ne am na solo daal macha allah béréb bi moo koy taxawal metti woon na lool parce que damay jigéen nekk ndaw te sa suma jigéen ma nekk xale teel la ñàkk samay waajur mais taxumaa ñàkk jom taxumaa nooy may liggéey jàng sama métier ba man ko ñëw ubbi fii bi ma koy ubbi nag metti woon na trop parce que bi may ñëw fii benn machine rek laa fi indi woon mais nag ma gëm sama bopp di ñafe di liggéey soxlawu ma dara pour liggéey rek euh, pour jariñu après nag ci laa def noonu di liggéey événement jot ma liggéey su ma liggéey pare jël xaalis bi ma liggéeyoon dem jënd ji ko machine bokk tamit samay natt ma pare teg ko jëndale ko jënd ji ko machine fii nag wax dëgg yàlla ni mel nii yëpp loxo kenn fekku ma ci ku dul man sama bopp ak sama yaay bi nga xam ne bi may door fii moo ma jëndaloon benn machine jox ma ko ma koy ñaanal tamit. ndax man sama yaay laa war a may journée bi di ko ko ñaanal bu baax fa mu nekk dàqal ko fi mu jóge ak bépp yaay nag bu jiitu ji. waaw li ma formé ci xale ñu fi nekk yaakaar naa war nañu ma plus de am na ci ñoo xam ne tamit génn nañ ñi ngi seen kër ñi ngi foofu di ñëw am ñoo xam ne tamit fii lañ nekk bu jógee fi dem sëy barab bi nag maa ngi ko tabax maa ngi ko taxawal 2011 euh, 2011 laa ko taxawal. waa non soxna amul jëkkër amoon na mais yàlla dafa weddi ñu koy sant yàlla bu baax te xam ne xëy na dafa gën ci ñun. man sama yaay mooy sama royukaay mooy sama idol parce que dafa nekkoon nit koo xam ne si ne dafa ñime liggéey ñafe gëm boppam te loolu la yar tamit ak njabootam wax dëgg yàlla loolu ci la leen yar ba ni demee jooy nañ ko de mais tamit. ñànkiwuñ ndax mënoon nañoo mënoon naa dem tey ñu ñuy dégg ci leneen waaye déedéet man mooy sama idol ci bëgg liggéey ci gëm yàlla ci jaamu yàlla ci doylu ak bëgg ak njabootam. ah tey fépp fu ñuy dégg nit ku baax ak ci liggéey sama taayif couture bi dama bëgg mu dem ba nekk ay taayif couture ay taayif couture yu bëree bëree bëree bëree bëri. muy fii ak bitim réew ak yëpp ñu may dégg fu ne loolu laay rêvé te foofu laa bëgg a egg nag incha allah. waa sama kàddu mujj maa ngi sant euh, jigéen ñëpp te li may dénk jigéen ñi ak bépp jigéen bu mu mënti doon mu liggéey ñafe gëm boppam te bañ a xaar kenn ci lenn na liggéey ñafe gëm boppam bañ a xaar kenn ci lenn bu mu xaar kenn di ko defal dara parce que oto yu rafet yi ak kër yu rafet yi ku liggéey ñafe gëm sa bopp def ko mais bul ko xaar benn yoon ci góor ak naqasadu sa noonu pour man jigéen li ngay lekk na lew muy nga ñaq ko mu lew la doom ba foo taxaw doo rus da ngay siggi di mën a jaaga jaa parce que xam nga li ngay lekk yow yaa ñaq mu lew la doom pour man jigéen bu mën doon rek na gëm boppam bu xaar kenn ci dara man loolu laay encouragé sama moroomu jigéen ñi. waaw ma di leen gërëm yéen waa sit internet muy info ma di leen sant bu baax di leen gërëm parce que li ngeen def tamit dafa am importance macha allah maa ngi len di suivre suma ma YouTube yëpp dama len di suivre parce que li ngeen def tamit dafa am jari di len ñaanal rek ci kaw ca kanam ci kaw ci kanam seen site bi yeena xam fa ngeen bëgg mu egg fa yalla na feen suñu borom eggalé ba mu nekk ay télé ay radio ngeen siiw ci monde bi yëpp nak lool la len di ñaanal yalla man nako te dina ko def te inshallah allah dina bax parce que da ngeen gëm seen bop nak ma xam bo ki jité site bi du question lim nekk sama nijaay moo tax mais dafa gëm boppam yàgg ñafe du tay rek bi nga xamante yàgg na ma di len ñaanal rek ci kaw ci kanam li ngeen bëgg daal yéen ko xam yàlla nako serigne borom defal.